ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ñu ngi leen di nuyu bu baax ci jataay bu tedd bi di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi di ci jiital sëriñ Murtala Mbàkke mi nga xam ne ci njabootu sëriñ bi la bokk di nuyu sëriñ Abdou Lahad di nuyu sëriñ Mod Njaay Jóob mi nga xam ne moo jiite xaliya bi di nuyu tamit uh, Baye Modou Xaali mi nga xam ne mooy bàyyu daara yi nga xam ne liggéey bi saa bu tollee fii rek loxoom feeñ na sa ak taxawaayam di nuyu tamit soxna Seyna Bulo mi nga xam ne moo jiite ci wàllu jigéen ñi ak ñoom soxna Aminta ak ñoom Faama di siyaar sëñ Abdou Salaam Dieng di nuyu ñëpp di leen wax ne liggéey bi nga xam ne moom lañ woote tey jii ci Touba mu dajee ak la le vingt-quatre ci mois de juillet moo doonoon bis bi nga xam ne waa ahlul xidma dañ doon dajale ñetti weer yu nekk seen jataay bu mel nii jataay bii nag bañ ko daan def dañ ci wetoon doon ci sàkku ay ndimbal doon ci sàkku ay taxawaay yoo xam ne fu nekk lañ ko doon xaar muy ci sëriñ bi muy ci njabootu sëriñ bi muy ci taalu yi jataay bii nag biñ ciy ñëw yàlla dogal na partenaire yi nga xam ne moom lañ mas doon wut sun boroom dogal na ci semaine bii ñu génn am nañ ñoo xam ne dañuy wër daaray alxuraan yi jàppale leen dañuy wër Serigne Touba di ko xañtu lépp loo xam ne gis nañ ne buñ ca dugalee seen loxo mu amal leen ñu am ci ñaari mbokki taalibe yoo xam ne kenn ki sëñ xaadim la tudd sëñ xaadim nag bu defee taxawaay yu mel noonu ci daaray alxuraan jaarale ko Touba ginnaaw bu mu ko defee ci yeneen dëkk dama yaakaar ni def na li mu war a def keneen ki tudd sëñ Basirou muy Basirou Sène ak sëñ xaadim Fall kon ñi ngi leen di dalal jàmm ñoom ci projet bii nga xam ne moom la waa ahlul ma gàddu fas yéene taxawu ndongo yi ci set fas yéene leen a taxawu ci wér yaram fas yéene leen a taxawu ci seen lekk ak seen naan kon mu mel ne euh, machine yi nga xam ne moom lañ doon sàkku daaw ba ren ngir di ci fóotal ndongo yi ñooñu ma tudd ci projet bi nga xam ne moom lañ doon dox ay at ñooñu ñëw nañ andil ñu li nga xam ne moo doon doonoon suñ tàkkuteef muy machine yooyu xam naa ci semaine bii di ñëw danañ teewal machine yi bu ko defee lenn ci kilifa yi dem réceptionné ko wax ko kilifa yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ànd dem ca barab ba xool ko xool yan modification lañ ca mën a def ndax dana am problème mu maçonnerie dana am problème mu plomberie dana am problème mu électricité yooyu yëpp nag comme dafa war a am ñu waajal ko mu doon barab boo xam ne mooy barabu ahlul xidma yaakaar naa wax ji raw na ma mais sëñ Ablaat war na leen a wax ne am na barab buñ turwe ba d'accord ak boroom ci jël ko barab booba nag dafa amoon jafe-jafe courant euh, bu fekkee moom defarul courant ba mu dellu si fa ñun mën nañ faa dem ba pare duñ mën a am courant maa ngi ko doon jàppale ndax boole woon naa ko ak directeur u bi ba sunu borom dogal na reprendre nañ courant ba delloo waat nañ ko ba courant ba ñëw dem na fay démb jàpp naa ne semaine bii moom dana am courant léegi nag bu amee courant ba pare moom ci këram kon danañ sañ a demander courant boo xam ne trois cent quatre lay doon waaye ci turu Anloul Khidma waaye dañuy xool kenn ci membre yi ñu def ko ci turam pour mu gën a yomb su boobaa barab moom daal di am courant bi nga xam ne mooy dëppoo ak industrie bi nga xam ne moom lañ soxla kon jataay bi liñ ci doon tënk rek mooy mbokki taalibe yooyu ñu ñu defal leen ñaan ñu defal leen ñaan yàlla dogal lépp luñ nisar liggéeyal ci dëkk bi rek yàlla àggale leen ko ñu ànd ak ñoom liggéeyal alxuraan ci côté boobu yàlla dimbali leen tam ba lépp loo xam ne moom lañ ne nisar def ci dëkk bi ci loo xam ne luy amal dëkk bi njariñ la yàlla jàppale leen bañ mën a am kàttanu def ko waaye ay nit ñu dogu lañ ñu am Pastef lañ ñu di leen wax ñu dal jàmm fii ci ahlul xidma ndax ñooñu ñooy membre yi nga xam ne moom lañ doon wër te suñ borom dogal nañu amee ko ci ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullah